maître El Hadj Diouf. waa dama ne Sénégal maa leen nuyu. Eh, xasaa naa def. xasaa nga xëy ci jamono. xasaa mi ngi baax. mi ngi baax waaw mi ngi baax tey baax. <laughs> waaw xasaa. Ah. dama ne man dama am lu ma métti. Ah, xam nga geroog hmm. manifestation yi. Hmm. xale yi ñëwoon sama kër. Hmm. dugg fa xale yi ñàkk fayda boobu ba léegi ma la bëgguma wax sax télé. Ah. xale xam nañu def. manifestation am ni dugg sama kër amul lu ñuy def. jël jël ay ginaar. <laughs> am na koo xam nga lu ñuy jël ay damitu carotte. am na waaw am na ay damitu pataas ñii di jël ay booy xiif <laughs> booy ñàkk fayda booy yoo xam ne amuñu papa xaw ma amuñu yaay. Uh-huh. xaw ma dañoo xiif ma moo tax loolu dama wax booy maa ngi nii ci jàmm. Uh-huh. booy ba nga xam na nga def mel El Hadj Diouf nekkul ci jàmm maa ngi ni maa xasaa muy baax. waxaa uh-huh. ma ngi baax. <laughs> nuyul ma ci Idrissa Seck. maa ngi leen di nuyu di leen sant ak gërëm bu baax di nuyu waa Thiès. di wax ni man sa Seck lépp lu ma wax Thiès kaaya tax dégg naa Grégoire Sanka gi dugal naa nitu Thiès lu mu wax wax wax wax ja daanaka comme mbalit eh loolu Grégoire fu mu dëkk <laughs> nanu wax dëkk bi gabon gabon gabon ga mu dëkk doom dara amu fa lu bon <laughs> Grégoire xamal nanu ko te mën nanu koo waxal gerawaal boo déggee tur bi sax nga xam ne garaw garawaay lay dendal ah. kanam gi comme gerawaay kon kon gerawaay na bàyyi Thiès gi muy foyee. ñorin Thiès du fowukaay il est vraiment pétri de talent ce garçon. oui Thiès ñi bu ñu dee téeméer. juróom-ñett fukk yëpp dañuy war. loolu du dëgg. loolu du dëgg loolu je le démenti en direct. du dëgg ñun nitu Thiès dañoo dëgg bu weesoo cee rek soow. ñun nitu dëgg lañu. ayca <laughs> ñu ngi koy gërëm ñoo xin il sa noom ñoo sa euh, fait plaisir ñu dalal la ci plateau bi mm-hmm. nee naa la daan sitaan yow ñaata at nga xësa. <laughs>